salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 d'Afrique des Nations bi suba la ñu koy tàmbali ci samedi bi foofu la ca Côte d'Ivoire ñu gis na nag suñu gaynde ñu ngi wéy li nga xam ne mooy seen wàccaay tey ji def nañu seen ñetteelu tàggatu wàcce tàggatu yooyu la ki nga xam ne mooy Youssouf saabali ne na ñu bokk ci moom mi nga xam ne dafa jóge woon ci blessure ñu convoqué ko ñu bëri yaakaar ne sax ki nga xamante ne mooy Cissé dafa def njumte ci dugal bi mu ko dugal ci liste waaye nag waxtaan yi nga xam ne amal na ko télévision yi fan yii li mu xamle kat mooy moom jàpp na ne joueur yi nga xamante ne leen tey ànd ak ñoom dem foofu la ca Côte d'Ivoire maanaam joueur la yoo xamante dina leen soxla te it dinañu mën a ci li nga xamante mooy compétition bi ndax kat amoon na expérience bu ni mel ci atum 2020 voilà wala ci kan bi ñu doon amal foofu la ca Cameroun waaye ca match yu mujj ci la dégg nga maam doog a waaye nag ki nga xam ne mooy eh, Youssouf bi bile dañoo jàpp ne xëy na lu ne mel moo ko nar a dal ndax kat bu ñu xoolee moom dafa jóge ci blessure ay weer a ngi ne yi mu futbalul waaye nag ñu gis ne bi mu ñëwee ci ndakaaru bés yu njëkk yi doon na tàggatu waaye tey jii de nee nañu entraînement yi nga xam ne gaynde ñoo ngi ko doon amal moom bokkul ci la ko waral nag ba fii ñuy waxee xamuñu ko xamuñu ndax dafa amaat gaañu gaañu bu bees wala gaañu gaañu bu njëkk ba dafa yëngu wala dafa am beneen raison bu tax ba bokkul ci li nga xam ne mooy tàggatu yooyu le ki nga xam ne tam mooy Fodé Ballo Touré moom nee nañu moom entraîné wul ak group bi waaye dañ ko daf doon daw daal moom kenn kon moom it nekk na joueur boo xamante ni ba léegi ñuy waxee yéen xamaguñu ba tey ana lan mooy ay mbiram kon loolu nekk loo xamante ni lu teey xel la gannaaw bi nga xam ne suñ mat ak seegul kan bi dina tàmbali suba mais Sénégal moom lundi lay joué ci match bu njëkk diggante mag Gambie amaana fileeg boobu dinañ ci am yeneen i xibaar su boobaa dinañ ci dal di dellu si ci kaw loolu nag Cameroun bi nga xam ne dafa bokk ci di nga xamante ni mooy adversaire Sénégal yi ndax kan ñoo bokk benn poule seen attaquant bi sax nekk seen capitaine muy kii di Aboubacar Vincent dañoo jàpp ne dafa am gaañu gaañu loolu la kii di xibaar biral ci ngoonu tey jile xamaguñu maanaam blessure bu grave la am déet ndax dina ko tee ci kan bi ndax dina forfait wala bokk nekk na loo xamante ni maanaam ab gaañu gaañu bu ndaw la rek loolu yëpp amaguñ ci benn xibaar xibaar bu ñu jot daal mooy kii di Aboubacar Vincent dafa am li nga xamante ni mooy ab gaañu gaañu loolu nag nekkul xibaar bu neex ci ñi di Camerounais waaye information bu am solo la ci ñun ndax kat élément la bu am doole moom mile am na expérience te it am na xarañte waaye mbir moom it dinañu wéy di ko topp kon amaat dañ ci daal di dellusiwaat. ki nga xam ne nag moom la ñuy wax Mikayil Ngor Faye moom nag nekk foofu la ca Barça ba jamono bii nag kayiti xibaar dañoo xam ne am na yeneen i club yu dugg ci mbiram xam nga temps yi ci ginnaaw doon ngeen dégg Girona nag fi ne dañu gën a ci mbir mi waaye itam ñi nga xam ñoo di Alaves dal di leen ñëw fekk si Alaves Deportivo Alaves ñoom li ñu bëgg mooy ñu abal leen ki nga xam ne mooy Mikayil Ngor Faye bile nekk ca Barça B waaye nag ñi xamante ne ñoo di waa Girona li ñu bëgg mooy ñu abal leen ko ba noppi laxas ci li ñuy tuddee option d'achat loolu nag nekk mbir moo xamante ni ñi di waa Barcelone ñoom nangooguñu ko ndax kat seen mooy gone gi dal di fay des voilà jàppale li nga xamante ne mooy équipe réserve boobule kon mbir moom it lu mën a sotti la ci janvier bi gannaaw bi nga xamante transfert yi fi mu ne nii mu ngi tar bu baax a baax foofu la ci Europe équipe yi am jafe-jafe ci ndorteel saison bi ku ci nekk yaa ngi wut looy dégg nga maam renforcer sa équipe ba mën ci génn voilà Mikayil Ngor Faye nag moom 19 ans képp la am xale bu ndaw la waaye xarañte la am moo tax club yooyu di booxante xam ngeen ne Girona bu ñu xoolee jamono bi moo nekk deuxième ci li nga xam ne mooy La Liga maanaam moo topp ci Real Madrid bi nga xamante ne mooy leader bi voilà kon jamono bi ñoom bëgg nañu renforcer seen équipe boobule voilà ci kaw ñu abal leen ki nga ni mooy Mikayil Ngor Faye op ànd ceeg li ñuy tuddee option d'achat Alaves moom itam mu ngi mel Dani Carvajal joueur Real Madrid la moom nag dafa dal di am ne nañu wala apa gañu gañu lol nak té ko deng mam maam tàggatu tey jilee wala jamono bi nak ñu gis né li nga xamanténi moy final bi wara dox sa digënté Barcelone ben bés ci dess ndax ci dimanche bi lañu wara jouer final mu aji ci super coupe d'Espagne waaye Carvajal bi nga xamanténi kérok mo nékkon homme du match ci demi final bi ñu doon am seen digënté Atlético de Madrid ndax dafa marqué bit but ba nopi def tam li nga xamanténi moy passe décisif def match bu am solo nee nañu dal mom dafa am li nga xamanténi moy jafé jafé am metti dal wala gañu gañu bu mu am té lol nak fi tay na xel wóoragul ndax dana bok ci kan bi ci euh, final bi li daal mooy am na gaañu gaañu moom kii di Dani Carvajal te ki nga xamante ni moo ko doon faral di wuuti ci poste boobule mooy Lucas Vazquez déggoon ngeen fi fan yi leen dafa am blessure boo xamante dina toog ay semaine balaa muy dellu si mbir moom it dinañ wéy di ko topp amaana fileeg suba dinañ ci am yeneen xibaar Olympique Marseille seen latéral gauche bi nga xamante ne moom la ñuy wax Renan Lodi te ñu jëlee woon ko foofu la ci Atlético de Madrid bu yàggul danañu waa Al Hilal dañu ko bëgg Al Hilal nag boo ko xamul mooy club bu Kalidou Koulibaly nekk foofu la ca Arabie ñoom nag jamono bi dañu bëgg signé ki nga xamante ne mooy international brésilien bi le di Renan moom nag jamono bi mën na jar koppar yu toll ci 20 millions d'euros voilà ñoom nag dal nañu koy dégg maam pare tek ci taabal ji ubbi nañu waxtaan daal seen diggante ak olympique marseille ngir xam ndax dinañu mën a jot ci moom am déet voilà moom nag défenseur la boo am xarañte ndax dafa offensif ba noppi xeexkat la voilà ñii di waa dégg ñu ngi dox ci mbir moomule ngir signé ko ñii di waa Olympique Marseille nag ñoom sax tàmbali a na benn joueur boo xamante ne mu ngi foofu la ak équipe boobu la ngir sa dal di koy signé moom mooy ki nga xam ne moom la Marseille dal di bëgg signé indi mooy Renan Lodi bu fekkente ne dafay jógee foofu foofule gone gi nag moom 21 ans la am maanaam ñaar fukki ak benn waa Scotland la maanaam Écosse ki nga xamante ni nag moom la ñuy wax Greenwood nekk foofu la ci Xetafe nga xamante ni Manchester United ñoo ko fa daal di appelé moom nag jamono bi bi nga xam ne moo koy def voilà daal dina fës lool ci weer bi nga xamante ni la ñu jógee ndax moom la ñu tànn daal di koy def meilleur joueur ci mois décembre bi nga xamante ni moom la génn foofu la ci Xetafe voilà moom ki nga xamante mooy Mason Greenwood jamono bii nag li nga xam ne mooy ëllëga moom amaguñu dara ci leer dañuy xaar ba mu dellu ci li nga xam ne mooy mois de juin bi fekk ñu am ab directeur bu bees su boobaa nag ci la ñuy am na li nga xamante ni mooy tontu wala bokk euh, réponse ci li nga xamante ni mooy mbirum ëllëgu kii di machine Greenwood bi la ak loo ci mën a dégg daal ma ngay defi jaloor ak équipe boobu di Xetafe comme ni la ko waxee moom moo nekk meilleur joueur du mois de euh, bi nga xamante ni moom la ñu jógee. Chelsea Football Club moom seen i jafe-jafe ba léegi dafay wëy gannaaw bi nga xamee ne seen joueurs yi blessé woon benn benn waaye kii nga xamante ne mooy Nkunku moom ay mbiram nee nañu dafa bëgg a jaaxal nit ñi coach bi di Pochettino sax mu ngi daal xam ne ne fi nii dafa commencé am ak jaaxle bu baax ci ki nga xamante ne mooy Nkunku ndax kat dafa jàppoon ne maanaam ay bés rek lay toog dal di dellu siwaat ci terrain bi mu ne tey ji fi mu ne nii ñu ngi ci fukki fan ba mu génnee ci terrain bi ak léegi voilà mënagul dellu si ba fi ñuy waxee maanaam ëllëgam daal moom mu ngi koy bëgg a jaaxal te élément ba mu soxla fi mu ne nii ko soxla lool sax ngir mu dellu siwaat léegi-léegi waaye gis nañu loolu fi mu ne nii mënagul jàppandi ku ci mel ni Ben Chilwell ak Benoît Badiashile ñoom dal dinañuy dellu si voilà ak ki nga xamante xamante sax moom la ñuy wax Chikwu Meka moom itam dal dinay dellu si kon am nañu trois retours waaye ki nga xamante ne mooy Nkunku moom ay mbiram leeragul ndax kat gaañu gaañu bi nga xamante ne am na ko ba fi ñuy waxee wéragul commencé gul sax li nga xamante ne mooy entraînement yi bu ñu sukkandekoo ci Pochettino Chelsea football club googu seen gone gi nga xamante ne dañ ko able woon ca Union Berlin voilà ñu koy wax David Datro Fofana moom nag jamono bi dal dinay dem foofu la ca Burnley Burnley lañ ko daal di abal ñoom nag jamono bi mbir ma la moo xamante ni sotti la ndax kat bu ñu xoolee gone gi jógee na foofu la ca Allemagne tey ji la wuutali foofu la ca Angleterre suba ci samedi bi la ñuy wax ne lay amal lii di visite médicale am daal di signé amuñu benn option d'achat nag maanaam dañ le ko abal bu saison bi jeexee mu takkaati bagaasam delluwaat foofu la ca Chelsea football club voilà moom kii di David Fofana ñam daak di waa Burnley ñooy fay li nga xamante ne moo aw ci salaire am ak yépp boobu muy delluwaat foofu la Chelsea football club loolu mbir la moo xamante ne sotti na kon doon diil la ki nga xamanteni nak mom lañ wax Ahmed Traoré mom wa Côte d'Ivoire la mom dafa dem fofu la ci Napoli joge ci équipe bi ñuy wax Bournemouth Bournemouth ñoko daldi di abal ñi nga xam wa Napoli wala daldi ni amal li nga xamanteni nañu moy visite médicale wala bok dina ko amal ci bés yi la su ko défé nak mo daldi di signé moom nag am li nga xamanteni moy option d'achat ñum wa Napoli ngir daldi di signé gone gi bu saison bi jeexee do toll ci 25 millions d'euros manam bu dem ba mois de juin buñu amé amee wala ñu yitté woko 25 millions d'euros lañu tek ci table dal di koy signé mais jamono bi dañ leen ko abal lolit mbir la mo xamanteni gay tey dal yar sotti Bayern Munich tey jii dal dinañu ubbi li nga xamante ne mooy seenam at ak victoire ci match bi ñu doon am seen diggante seen digganteeg Hoffenheim ñoom ñoo ca dal di am ndam 3 buts à 0 victoire bi nag ki nga xamante ne moo ci a fes voilà mooy gone gi nga xamante mooy moo amal ab doublé ki nga xamante ne mooy Harry Kane daal di marqué bit bi ci des ci li nga xam mooy dernière nga am ab doublé la amal ci victoire boobu nga xam ne tey jii ñi di waa Bayern Munich daal dinañu koy am gars lii mooy li fi gënoon fes kon ne leen suivre Sen Sports 221 the best sport news channel